Euh, suñ ndaje mi tey jii nii li ko waral moom mooy jàmm dafa toog ay weer weer yoo xam ne amul ndox muñ nañoo muñ ba suñ boolu muñu kaay fees del jigéen ñi sonn nañ yenu nañoo yenoo yenu ba mënatuñoo yenu góor ñi jënd nañoo jënd ba mënatuñoo jënd jàmm gën dañ ko transformé euh, transformé maanaam tuurukaayu mbalit jàmm gën dafa lëndëm jàmm gën amul lamp ñoo ngi interpellé Abdou Mbacke Ndaw poto yi nga xam ne moom la palante fii nii mu ñëw def éclairage public bi xamul lan lay xaar nañ na ñëw euh, euh, monte fi làmp yi bu fekkente ne yor nañ lamp ñoo ngi demandé également le président de la république Macky Sall mu dimbale waa Mbacké également. parce que seen xeex bi xeex bu noble la moom mooy ndox mu bon mi nga xam ne moom la ñuy jox ñu ñu changé ko jox ñu ndox mu baax waaw loolu lañ ne woon dañu ko kii. Euh, insécurité également am na fi parce que barki démb moo la fi sapeur pompier ñëw daal di rey fi am yeew. te loolu du ren rek daaw it amoon na fi kon ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan Abdou Mbacke Ndaw ak waa CNO ñu dimbali ñu ci jàmm parce que jàmm waa jàmm gan sonn nañ. ñun jigéen ñi nag sonnu nañ sonn nañ taayi nañ ci manka ndox mi lu mat juróomi weer mu ngi nii amuñ ndox dañuy toog dañ daan toog bu min wi ñu am ndox waaye léegi balaa ñoo am ndox min wi sax day fekk relevé am. wala facture ñëw ñu may ñu ñuy root minuit ba huit mu tëj waaye bu loolu amut duñ root te chaque weer dañuy fay léegi nag ñun jigéen ñi dañoo sonn dañuy jël suñ dépasse di ko jënd jee ndox buñ ñëwee dem ci robina ba jënd bidon juróomi dërëm fay fukki dërëm ñu yóbbul la ko ca kër dañoo sonn dañoo taay dimbale leen ñu ñu am ndox dañoo sonn waaw dañoo sonn du dëgg du yoon ñun jigéen ñi amatuñ bopp amatuñ dokk ndax ndox guddi ak bëccëg tuñ dañuy fanaana ubbi di xool sonn nañ sonn nañ wallu leen ñu ñun jigéenu jàmm gën wallu leen ñu ah jafe-jafe metti na lool ndax nelawatuñ gisoo sama bët yi nelawatuñu dañuy fanaana ubbi sax guddi da nga génn lu mat juróomi yoon ngay ubbi di xool di dugg di génnaat doo nelaw doo am ndox sonn nañ lekkatuñu ceeb bu neex sonn nañ dañoo sonn nag ndax booyee ba mën la ci root guddi ci lañ dëkk root bëccëg ci lañ dëkk benn bidon ndox na naqari 100 francs fii la am robinet bele lañ koy duyee duyee wuñ ko sax robinet bu jege bi ñoo ngi koy duyee ci robinet ba ca kaw jàmm gën kaw bidon fukki dërëm la ñuy duy ñu yenn jëlee saret fukki dërëm ndax suñ xale yi gis nga liñ yore mënu ñoo yoon ñun ñi dañoo yoon ba ñun ñëpp ñu ngi feebar wow koŋ koñ bi fii ñun dégg nañ am na ñoo xam ne ñu ngi seetal na amul dégg te dañoo gis am na ñoo xam ne seetal nañ dañuy wër di leen indil ndox ñuy sotti ñun amuñu ko ndalu tax dégg nañ fii sànq ñu ne lañuy jàppale politiciens yi waaye ñun gis ñu politicien bu ñëw jaaru jàmm gën kooku amut ku ñëw rek jàmm gën nga jaar te dañ lay jàppale ba jeex ci tàkk ndax ñun xamuñu jàpp di bàyyi waaye ñun buñ leen jàppee ñoom duñ ñu jàpp jàppale wuñu ci dara dara jàppale wuñ la ci amuñu courant amuñu ndox amuñu dara sunu facture bu ñëwee dañ koy fay ñun dégg nañ mbàkkee ñu fay ndox waaye suñu secteur bi ñoom ñëpp bu ñu déggee nañu ñëw ku ne ñu indee suñu loxo ca kaw ñun dañuy fay ndax lu tax ñuy fay dañoo bañ ñu coupé ñu àll ndax lu ne dégg ko ci yoraluñ kenn dara dañuy fay léegi nag nee na lu tax fay ndox mi fayuñu ko nit ñi ñoo fayut waaye ñun moom ñun ñu ngi fay te ñun facture yi gis nañ bu ñu commencé ñëw dañuy indil ndox bu demee ba dara des lu may indil euh, courant yi facture yi ñëwatuñu dootuñu indil ndox bas bu ñuy relever dootu commencé di indi ndox léegi nag son sonn amuñu courant amuñu ndox courant bu ngeen fi gis rek ñi tey am dooleem tuuti xëccëg sa morom xëcc sa morom xëcc waaye ñoom bi ñu indi seen bopp lamp yaa ngi nii benn lamp duxu benn benn sunu xale yu góor yi xale yu jigéen ñoo mujj di cotiser di jënd ay lamp di def ci sunu bunt yi waaw sàcc bu ñu dàq fii la oto bu ñu dàq dëkk ba mu def lu bon fii la jaan yi fii la ñàngoor yi fii yeew yi fii waaw maa ngi noonu dara amuñu ko dara dara amuñu ko amuñu lamp ndox dañoo sonn dañoo sonn dañoo sonn